Al-Bourham Events, le numéro 1 de l'événementiel, modèle soit au devant de la scène un gala méga de lutte. Balla Gaye 2, le de Guédiawaye, mooy jàkkaarloo ak Tapha Tine, le géant du Baol, un choc de gladiateurs pour la couronne de l'empereur. Drapeau Pape Ibrahima Diagne Bassirou. Grand Serigne de Dakar Al Bourakh Events fas yéene boucler la saison dans l'apothéose ak ay ngandi grand combat ci benn takkusaan Sokh mooy day ak Mama Lamine Blindé a jëflante ak Zambla Bébé Saloum war a jàmmarloo ak Jacob Baldé Malaw Seras mooy daje ak Ndandi Fall ordinateur war a ak Ndoul général bu war a daje ak Boy Malika Kirikou waxti daje ak Ardo Viengolo wàcc jàkkaarloo ak Tafatine bu jàmm gën waaye nag c'est événement grandiose uniquement sur pay-per-view lay doon benn télévision du ko wone bu ko bëggee seetaan da ngeen ci dem ci widewo point tv wala seen affiche point com 10 000 francs ngeen di jëndee code bu dee Sénégal 19 euros 99 au niveau de la diaspora date à retenir juillet 2024 arène dimanche ak Albourakh Events. jërë ngeen jëf mbokku internet li si Rewmi TV mbokk yi ñu woon mbégte bu baax a baax contentement jàkkaarloo te yéen fu waaye mën a ne àddina du ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm te di ko sax si yéen di nuyu kilifa diini ak kilifa aada bu baax a baax di nuyu borom kër gi Serigne Fallou Seck borom taab Serigne Touba Xayra ku nekk na xam ne ni jour ji mooy deux combat ampleur combat choc combat guerrier combat ndaanaan combat bi nga xamante ne en ce moment moom la ñuy waxtaanee partout dans le monde rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo nekk fii si réew mi di Sénégal diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine ku xam nag le Messi Dia le Messi ku xam-xam kaak Balla Gaye 2 ay temps Dia le Messi ku xam xam kaak ñaan. koo xam-xam kaak fas koo xam-xam kaak noot rawatina wàllum xëccoo moom la Messi moo si mën si réew mi parce que def na ba tàyyi ma siy teg sama bët macha allah moo war a ñoo jël si ko fas yéene moom waxtaan si loolu yëpp combat bi kan moo jekku combat bi est-ce que nañ ko xaar si ginnaaw Balla Gaye 2 mu ànd ak moom bi esat walla loolu yëpp daal mbokk yi bu nuyoo incha allah rabi daal si waxtaan rek Dia le Messi. le Messi maa ngi am mbégte bu baax ak contentement jàkkaarloog yow di la nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg si maa ngi lay fay maa ngi lay fay Serigne ginnaaw bi ma jullee ma yàlla julli ci yonent yàlla bu tedd bi sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp tamit di sakku si ñëpp ñaan di ñaan yàlla liñ ci wax mu amal nit ñi njëriñ. juumte bu ñu juum ñu xam ne yëfi nit la ñu ñu jégalu si rek mm-hmm. loolu kese la. Mm-hmm. macha allah balaa ñuy ñëw si combat bi dayo combat bi préparation combat bi mbër bu ñu jóg si combat bi dañuy ñëw tuuti rek par rapport ak li nga xamante ni moom ngay liggéey si réew mi ba ku nekk teg si bëtam ku nekk rafetlu ko macha allah muy côté nopp parce que ja gis nañ ni danga mën nopp lu si ëpp bëri na ñuy woote. bu ñu joxee seen numéro ñu woo la dañ ci am satisfaction totale sa digganteeg nopp lan la. sama digganteeg nopp parce que lii xam-xam la yoo xam ne man dama ko fekk ci kër gi. ci ëtt bi. samay maam doon ko jëfandikoo. mu dem ci samay papa samay papa di papa ñoom ñëpp. mooy sama côté yaay mooy sama côté papa. ma ñëw fekk ko ci kër gi. ma dem jàngi wut leneen teg ci bon di ko def di ko pratiquer loolu kes la njàng la tooguma rek mu yegg si quoi dama dama ko jàng gëstu ko tamit ba yàlla may ma si lim ma si may ma si gërëm yàlla lool lool lool. mais au début est-ce que woon na parce que genre xam-xam yu mel noonu pour nga am ko day métti da ngay déplacé wu dëkk dëkk dem di ko wuti. parce que xam nañu pël yi ku xam pël yi côté Fouta xam ni macha allah bu ñu wuti xam-xam yu mel noonu dëkk ak dëkk dañu fay dem pour am xam-xam bi ñu mel est-ce que métti woon na si Dia. c'était très difficile. métti woon na trop parce que da ngay tukki lu bari dangay dem ci dugg dugg ci àll yi ci tàngoor gi fu ne foo dégg am na benn sëriñ bu mag bu yëngu ci lii da nga fay dem. Mm-hmm. boo demee nga toog fa di ko liggéeyal ba keroog mu lay may li mu lay may mhm. nga jàll noonu nam c'était très difficile moom ut moom mhm. ut xam-xam mhm. musul neex comme ut xaalis comme ut leneen ak leneen ut xam-xam nekkul lu yomb lu doy waar la lu doy waar la lu metti la mais nag ñu ngi siy sant yàlla maati maam yi ba fii loolu sunu xam-xam la léegi nag séeréer yaa ngi mooy sama jaam yi ko séeréer yi ak joolaa yi <laughs> euh, ñu ngi euh, ñu ngi koy def mm-hmm. ñeneen ñu ngi koy def mm-hmm. waaye pël daal lañu xamee fas ak sunguf mm-hmm. voilà loolu kese la parce que waaw sunguf da xam garab xam nga garab sunguf garab garab dafa am lu ñu koy wutee garab doo jékki-jékki rek dem wuti garab mm-hmm. garab da sañse mm-hmm. nga dem wuti ko mm-hmm. dafa am ay bis dafa am ay ak bés yu dafa am ay heure boo fay dem dafa am looy ngannaayu maanaam weexa weex weexal garab gi des fois da nga jël xaalis sax nga dugal ko ci say sa poche dem seeti ko mm. da ngay sangu ba seet sol sel yore yu rafet mm. dem mel ni kuy seeti buur nga dem direct ci garab gi am na waxtu boo xamante ne bu weesoo doo garab googu dootoo ci amati accès xanaa suba waaw am na ay bis il faut nga xaar ba bis yooyu ñëw mm. nga dem boo yegsee tamit dafa am looy wax ak garab gi danga koy nuyu jat ko nuyu ko jaar ci santam garab ga de garab dafa am sant garab ñaar la mm-hmm. garab bu am a dëj ak garab bu amul dëj mm-hmm. garab bu am dëj ak dëj yi ñoo leen wutale garab bu am dëj ak bu amul bu dëj mm-hmm. garab yu am dëj yi ñooñu boo yegsee si ñoom ñas nga leen di sante ñas lañ sant mooy garab yi am dëj voilà garab yu amul dëj yi boo ñëwee li lii waaw lii walla lay noonu lañ sant da ñëw nga ne naam ñas nga nga dindi li ngay dindi wala nga ne naam ñas wala naam lay benn bu ci nekk da ngay jaar ci santam nga nuyu ko soog a jat nga wax ak moom wax ak moom wax ak moom ba garab gi kontaan booy wax ak moom da ngay gis sax garab gi day xaw a yëngu maanaam garab bi day gis boppam mu leer la garab gi nangu na nga am nag foo commencé dafa am booy commencé ak côté boo terminé loolu nag tamit nga nga dajale yooyu noonu weer ko ci benn naaj weer ko benn naaj naaj mooy benn naaj mooy nga le même jour maanaam nga nga nga nga weer ko tey nga dindi ko tey weer ko tey mu wow tey dëbb ko tey def ko sunguf tey maanaam lépp du génn ci jour bi. dafa metti xam nga loolu dafa metti hmm. nga def ci li ngay def jat si li ngay def loolu noonu boo ko joxee ay ay nit nit da koy jëriñoo. macha allah moo tax. Euh, euh, sunguf daal nekk na loo xamante ne nii lu yéeme la lu yéeme la mais ñu bari fii dañuy jël sunguf hmm. jënd fii ay sunguf teg di joxe man gis ngeen man sama oto laay taal dem seeti ko dem ci àll ba hmm. dem foofu laay seeti am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñu xarañ lañu si mbirum euh, sunguf ñu dimbali ma ci tamit moo wut ko loolu kese la. Mm. fas bi fas bi. fas bi tamit noonu noonu ñu koy liggéeyee parce que fas bi dégg ay nit. lu existé la depuis ci ay maam ba léegi. fas lu am la. dangay ngay gis sax am am ko am ko am ko am ko am ko am ko bañ a metti léegi ñu fasal ko léegi mu taaw léegi. waaye léegi ku jóg damay fas ku jóg damay sunguf ku jóg damay nopp. mais bien ci lu gaaw. ñett fan duy def dara. Hmm? waaw waaw. ñett fan du du du def dara si fan fànn bu ne ah. allahu fas mën na lu ne. ci kaw nga mën ko. waaw mais ñi ko mën moom fu ñu toll nii wax dëgg fa yàlla bëri bëriwul. bëriwul non non bëriwul. kër xëccoo bi la xëccoo. maanaam nit bëgg dara nga bëgg dara di ko man wax naa ko waxati ko wax naa ko waxati ko xëccoo man dama koo fekk sunu kër. man damaa judd rek fekkoo xam-xam xëcc fekk xam-xam xëcc si suñu kër man damaa judd rek màgg fekk affaire boobu noonu ci sama ci sama ci sama ci sama ci sama ci sama ci ci sama kër suñu kër ñu ñu koy def ma ñëw dem tamit dem yokki yeneen xam-xam hmm. loolu la xëccoo suñu affaire la quoi suñu yëf la suñu yëf la hmm. si biir macha la ñuy jaar dugg si combat bi nga xamante ni en ce moment moo nekk suñu kanam war am le 21 juillet ñu war si ànd ak Albourakh muy combat ampleur Balla Gaye 2 gisoon nañu def nga sorte ay temps ay temps si ginnaaw ni yéen ñaar yàgg ngeen dan nga ko jàppale si ay bisam macha allah tey mu jëm combat bi nga xamante ni ñu bëri dañ ni combat bi amul droit perte bi le combat le sorcier Dia da ngay nekk si ginnaaw Balla Gaye ak moom ñaan ko si biir événement wala da nga fas yéene nëtër mbër bu ñëw nga ñaanal. bi ñoom ñaar yëpp amul kenn ko ci am droit erreur. moo tax ma yërëm leen. waaw hmm. dama leen a yërëm trop ñoom ñaar ñëpp. amul kenn ku ci am euh, droit wu défaite donte défaite moom dina am ala xaalin. waaw ala kulli xaalin moom. Hmm. mbir moo mën a ñetti mbir moo mën a am benn mbir moo am. Hmm. vainqueur vaincu wala match nul. Hmm. donc ñoom ñaar yëpp. maa ngi leen di ñaanal. mais man comme d'habitude. ñëpp xam nañ loolu sama mbër mooy. Balla Gaye 2 mu yëg ko yëgu ko xam ko xam ñàkk koo xam hmm. ñëw fi ñàkk fi ñëw je m'en fous de ça hmm. man mooy sama mbër mooy sama mbër te maa ngi ñaan yàlla mu am ndam si combat am bi mu jëm mu jëm non non de bala ngay dégg nañ dëggante de trop sax hmm. trop trop trop trop trop c'est que nit ñi ñooy wax nii rek ñooy wax ne xëy na dama leen di tuur lëndëm euh, nit ñi di meloon ak yooyu mais wax dëgg fa yàlla géej nañoo gisee géej nañoo déggante trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop géej nañoo gisee mais combat bi noo ko gisee combat bi en bi Balla Gaye de am na komba bu ne mu génn si mystique dafa présence si komba bi di ko ñaanal yàlla rek mm-hmm. ndam tamit sëriñ yooyu mu dénk boppam mm-hmm. yal na leen yàlla may ci combat bi mu am ndam ci combat bi. Euh, amaana un jour tamit man dinaa si mës a bokk. parce que waaw bokkoon naa si si deux mille deux mille euh, ba deux mille wax. contre contre contre contre Tafatina. Ah. waaw boobu sax yàlla xam na ne du Balla Gaye de directement. Hmm. woowu ma téléphone woowu ma ko téléphone. Hmm. ay nitam ñoo ma fay xaalis ma ëlbati combat bi. Hmm? waaw. Lamine Golo moomu si la bokk mais yàlla xam na ne waxuma direct ak Balla Gaye de wowuma woowuma ko euh, téléphoné wu ma téléphoné wu ma ko ñëwul fii dew ma fa dama toog gars yi fansam comme tey nga am xaalis mm. nga am xaalis tey nga nga bëgg combat bi nga woo ma nga ne ma jàppal si combat bi man noonu laa si jàppee si combat boobu noonu mm. biñ ma ko waxee ma xool effectivement ma xam ne saa waay dañ koo jëkk woon ci combat boobu mm. ñu ne ma am ah, ne waaw ba ne waa baax na ñu ne ma ñun daal li ñu soxla mooy ku ku ñu téyel loxo tafaatin yi ma ne waa baax na bisimilah loolu mooy sama mën-mën yàlla dogal ma def loolu tamit ñëpp gis nañ ne combat boobu noonu loxo saawaay yënguwul. kon loxo maa ngi nii combat boobu noonu loolu de bon mais Balla dee de moom moom ma fay ah. waaw ay fansam ñoo ma fay. lamin Ngolo moom ma booloon nag ñoom ñu jox ma xaalis ma liggéey si combat bi mais cette fois si mm. li ma si jaaxal mooy euh, gisuguma lamin golo wax waxuguma si combat bi bon euh, dégguma leen gisuma leen mais en tout cas ak nu mu mënta tëddee. Hmm. ak nu mu mënta mel. Hmm. moom Balla Gaye yal na ko yàlla may ndam. su dee hmm. am naa tuuti ci Serigne Babacar Sy. waaw yal na ko yàlla may am dem may ndam ci barke Serigne Babacar Sy. ah mais am ni Moussa Fall am de te waa Bawol dañoo jug. dégg naa lu bëri moom mooy favori. mais Balla Gaye yàgg nañ favoriser nit. si kawam mu daan la. contre Yékini hmm. kan moo doon favori moom moo doon Yékini moo doon favori hmm. ak ñeneeni mbër ñoom lañuy ñuy jox favori hmm. mais pourtant Balla Gaye de daan na leen saa waay dafa mën a bëri mais si ñooñu tamit ñii benn la rek gis nga waa ji waa ji dafa aay nag ci ponkal moo wax la ko benn affaire xaw ma nag ponkal bi waaye dafa aayoon ci ponkal de. Mm. voilà dafa mën a bëree te néewul kattan comme gars yi ni ñuy wax. Mm. kii moo ko ëpp doole kii maas ak doole bokkul. Mm. te Balla Gaye de physiquement moom dafa am doole macha allah. noo seetaan naa ko ci télé bi comme ñëpp. seetaan naa ko mais ça va quoi mais li ma si jaaxal mooy dama ciy wax waxaat. loxoy tafaatin yi ba tey mi ngi majj majj kenn teeyu leen. Hmm? waaw. te yaa ko téyewoon en waaw waaw te ba léegi man gis naa ne loxu tafaatin yi ba tey ñu ngi majji majji ba tey ñu ngi doxantu ba tey ñu ngi fonctionner normal te combat bee bi mu desee bi mu desee deux jours maîtriser nañ maîtriser naa loxo yi mais man bi yoon bokkuma si parce que lu tax ma ne bokkuma si c'est parce que man ak la Gaye de sëkkuñu fas ak sunguf defuma ci fas defuma sunguf ñoom woowuñ ma sollicité wuñ ma maanaam pour man ma jàpp si man tamit comme sëriñ ñëpp comme yow comme man comme keneen comme comme mënte doon mm. damay toog di enjoy combat bi di xool mm. parce que sénégalais la dama bëgg làmb mm. mais man li ma si jaaxal ba léegi loxoy tafaatin yi ba tey ñu ngi majj majj waxee si doo ci doon supporteru Balla ñu téyul loxo loxo tafaatin yi su fekkee Balla Gaye de téy ko gars yi buñ ko téyul problème bu rëy dina am ci côté Balla Gaye 2. waaye ñu jëlee ay téye loxo tamit comme nga nekk ñaari la yor moom du jar na ko. si rek. jar na ko parce que ñoom Tafatine moom mi ngi def le tout pour jàpp loxo loxo loxo Balla hmm. mais pourquoi Balla Gaye 2 du jàpp ay loxam. kon Tafa mi ngi si kii pour am na mystique bu leer da ñëpp a ko ay mbokkam ak ay sëriñam dañ koo ñaanal pour mu dóor Balla Gaye 2 mu kaw moom kaw la indi dóor dóor ko ba mu tëdd loolu la bëgg moom. loolu lañ ko dikk loolu lañ ko deey dina am mbaa du am yàlla rek yàlla yàlla rek lay leer. Hmm. waaye moom tafaatin Tine combat bi bu amee moom loolu lañ ko deey moom lay indaale combat bi maanaam dóor mu daanu loolu la indi mais yàgg ngaa indi nit yàgg na indi bagaasam ba ci. Hmm. làmb ji ba ci ñu yàq lépp. loolu la koy def. loolu bala ngay de mën na lu ne te am nay sëriñ yoo xamante tamit yaakaar naa ne xanaa du ñu nelaw. du ñu nelawee noonu. ah deux jours a des de. yaakaar naa ne ah, non ba léegi mën na mën mën na soppeeku ba tey lii may gis mën na soppeeku mais en tout cas bu soppeekuwul loxo ba sa waay sa tafatin yi hmm. gars yi amuñ ci pexe pour téy ko di nga fi gis di nga fi gis kaw kaw bu yu yu doy waar. tafatin gàll la si làmb mu war a ñëw rek war a jàkkaarloog adversaire. il est dangereux dafa dangereux. Hmm? comme Balla Gaye dafa dangereux. mais Balla Gaye 2 am 50 pour cent wala 60 pour cent. Balla Gaye 2 dafa tafaatin. Hmm? dafa mën a bëri. te neewul kattan. mën na lu ne. am na kattan dafa am gis. ñu bëri dañoo jël kële ne moom mooy ëpp doole moom mooy lii moo lële moo lële moo lële mais Balla Gaye 2 il a la force. combat bi daal boo bëggee dëgg-dëgg. ku ne mën ngaa daan sa morom. te kaw. mën na see am ardo dina mën na see am yoon pourquoi xam nga fa laa ko teg parce que ñaari ponkal yoo xamante ne saa cent cent kilos ak lu teg ak cent kilos lañ teg hmm. teg na hmm. mais ñooñu bu ñu naante bu ñu newante rëkkim hmm. gaañu gaañu mën na am ak lu ne mën na am kaw mën na am tamit foofu laa ko wekk ah teguma ko sax si xam-xam hmm. yàlla may war nga mën a tëdd ba guddi jeneer komba bi xam kii kat moo jëkku mystiquement moo jëkku lépp ko def physique moral lépp kooku moo fii may wax ak yow xanaa déggoo li ma la wax hmm. fii may wax ak yow nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii ñoom ñaar yëpp am na njàmb ñoom ñaar yëpp mystiquement taxaw nañ hmm. mais Tapha moo ko gën moo ko xaw a su tuuti si gàllaaj mais Balla Gaye ëppalee ko gàllaaj taxut nga daan ko. Hmm? maa la ko wax. Eh, parce que newoon naa leen sëriñ la am na lu mu xam. foofu laa yem. waaw lu mu xam. ma ne Balla waaw day bëri day de kan la daanul fii man damaa far. waaye da ngaa far damaa far damaa far sama visu sama sama gis-gis laay wax. Hmm. dama far ba mu far man man sama yoon nekkul ci tafaatin. Hmm. man su may wax man sama mbër laay wax. moom laay ñaanal tamit. yàlla mais man sam musuma hésité ci Balla gay de buy bëri. ma ñaanal kook ñàkk koo ñaanale yam musuma musuma tiit. Mm-hmm. moom buy bëri toujours man damay con damay am confiance que ne day daan. maanaam dama ko gëm quoi. Mm-hmm. dama sama xel du instant bi nii nii nii nii nii mm-hmm. donte man bokkuma si combat bi. du fas du sunguf mais yaakaar dafa fort tamit. man yaakaar naa ne combat bi war na ci mën a génn. Hmm? waaw. ñaasante ak ay. Richard tool ak boq la waalo yooyu noonu Fuuta. dem pour dem pour pour ci. pour ñaan lu foofu. pour ci pour ci pour ci combat bi. waaw déedéet mais am naa droit toog ñaan ñaan yàlla comme ñëpp rek mais du fas ak sunguf de. doo paas ak sunguf du dara de lu ci def parce que ñoom tamit laa juñ ma loolu. Hmm. buñ ma ko waxoon tey tey tey tey ma dugg si combat bi. allah la dernière minute mën naa ëlbati affaire yi. mais ba fii may waxee ak yow ni kenn waxut ci ak man. waaye kon donc man li ma mën mooy. maay mais ku julli ñaan su la neexee ku julli bu la neexee nga ñaan ah. et eh, alors. ah est ce que nekkul béy wóoy na mbuus instant yii nii combat ba jot na di. en tout cas daal combat bu neex lay doon incha allah bu fekkee combat bi am na. bu dee combat bi am na. am na mooy la man xam naa li ma la wax bu dee combat bi am na daal combat bu neex lay doon bu dee am na. gëmu mu bu dee am na. combat bu neex lay doon. si kanam Messi waxal ak ñii lu leer parce que tamit ñii mënuñu jënd seen ay ticket cinquante mille nga naan bu dee am na. bu dee am na bu dee combat bi am na moom combat bu neex lay doon combat boo xam ne kenn ku ci nekk mën ngaa daan sa morom combat boo xamante ne nii combat bu bu neex lay doon normalement combat boo xam ne ñëpp a koy xaar. ñaata minute bu dee bu dee bu dee bu amee. waaw amee comme que fa nga nekk léegi bu dee bu amee ñaata minute la pour man les cinq premières minutes avantage Balla Gaye de la. waaw avantage bu Balla Gaye la bu ko weesoo bu ko weesoo kee bu bu bu deuxième soufflam bu bu bu kii mën na sonal Omar mën na ko sonal mais te mais Balla Gaye 2 comme quand mi ngi tamit mi ngi contact plus de quinze minutes ak yooyu loolu yëpp mën na ko dimbali en tout cas de toute façon yàlla na ko yàlla may ndam lan nga gis la war moytu Balla Gaye amul lenn lu muy moytu ci mbër ma wax la ko amul lenn lu mu war a moytu ci mbër loolu kese la amul lenn lu muy lu muy moytu mbir combat bi daal moo wax la benn affaire combat bi dool bu amee dina doon combat bu neex boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar mhm. loolu laa ci gis ngi ma de fan su Tapha Tine yeeg fan su Balla Gaye yi woote leen am na lu ma dee nag ci suuf nanga ko wax wax nanga ko wax ci micro bi waaye wax na ma koy daan waaye nanga ko wax ci micro bi euh, euh, Dia yaakaar naa ni euh, kontaan na li ñu bëggoon waxtaan ak yow waxtaan nañ ko ak lan ngay tàggatoo. yal na yàlla dolli jàmm Sénégal yal na yàlla dolli jàmm Sénégal yal na yàlla dolli jàmm Sénégal mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf.